assalamu alaikum, Sénégal Assalamu alaikum, Géejawaay ñu Nous avons woo ci assemblée générale bi le 17 février à partir de 9h fële les foyer amoo kat képp kuy doomu Géejawaay ñu lay woo ci assemblée général bi. assemblée générale bi liko le développement de Nous bu eu développement de Géejawaay ci domaine yépp social économique éducation environnement santé et sportif.

wa guedjaway Assalamu asalaamaaleykum wa Sénégal donc comme niko sama mbokk mi waxé ñun tay suñu association boobu ñu bëgg taxawal muy euh, guedjaway je m'engage te AG bi di am le 17 février 2019 à 9h au foyer Hamo 4 li ko tax a jóg association bi dañu prévoir né dina am ay différents corps de métier yu fay am manam walu menuisier mécanicien électricien légui ñu bëgg na créer entreprise bo xamni tay ji prestation de service lay def lay def exemple ku soxla walum menuisier wala walum mécanicien wala lu meunti don nga contacter ñu ñu bolé la ñu bok ci association bi ñu liggéey la lool manam créer emploi benen bi moy prévoir nañ tamit créer benn société d'organisation d'événement légui prévoir nañ tay ji envoyer ay nit tay ñu dem def ay formation ci ni organiser événement bu ko défé tay ji képp ko xamni ne organiser événement bu mu mënti doon tey jii ci géejawaay wala sax fu dul géejawaay événementiel nga wooñi si ñu organiser la ko ci kaw ñun ñi tey ñu jàng lool xam ko mën ko am na yeneen ak yeneen i projet yoo xam ne ci wàllum environnement la ci wàllum éducation ak yeneen ak ay projets yu bari mënuñu lim yëpp waaye képp koo xam ne intéressé na la développement Guédiawaye intéressé na la nanga nga daal di ñëw bokk ci lool ki nga xam ne tamit moo nekk à l'étranger contacter suñu numéro moo ngi noonu ci suuf na nga ko jël nga contacter ñu bu la intéressé ñu expliquer la information de taille bi ñuy joxe c'est que l'association est apolitique waaw ñun politique ñoo jik ñoo jik ñu waaw donc nak ñoo ngi remercier doomu way ñep ñoo ngi ñaan ñep nañ ñew bokku ci li daal di koy jëmmal pour suñu way jëm kanam ci domaine yëpp